ngeen jëf jërë jëf dégg ngeen liggéey bi niñ ko bëgg a tëralee mane mane ma ne ma ne dégg ngeen dégg ngeen liggéey bi niñ ko tëralee te premier ministre wax ak li ministre Mor Ngom wax président Macky Sall daf ko gis seegu ko jox ci accord am liñ fi wax yëpp muy li fiñ jëm ak naka la nar a liggéeyee président makisal gis na ko approuvé na ko entraîné na ko waxtaan ceeg candidat bi ñoom ñaar incha bu neexee yàlla ajjuma lañ fas yéene commencé liggéey bi pôle yi fiche yaa ngi nii mais pôle kuréel la boo xam ne dañuy liggéey fukk ak juróom la ku bugg a dugg rek dugal loolu la président wax waaye itam ñu fàttali ne quartier yi dañuy am comité électoral commune dafay am comité électoral pour la commune département bi dafa am département pour la commune su ko defee dugg kër dugg kër dugg kër dugg kër lay doon campagne bi loolu ci la bokk koŋ-koŋ dugg waxtaan ak ñeneen ci kër ga loolu moo waral ñu def structuration bi ah léegi nag monsieur le premier ministre lii le président wa di Macky waxoon ne nañu ko def def nañ ko la ci tegu mooy séminaire bi nga xam ne tous les leaders de Benno danañ ci bokk ak lépp lu ci war a dox rek ci yoon ni ko yoon tërale bu neexee danañ ko def loolu laa bëggoon wax comme conclusion jërë ngeen jëf encore une fois alhamdulilah rabbi alamina